asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm ca Paris ña fay waxtaanee naka la ñuy mën a suqalee koom-koom mu réew yi nekk fii ci biir Afrique jullikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne njiitu réewum Sénégal di Macky daal dina fay jël kaddu moom nag daal dinay soññ dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci G20 ngir ñu daal di ñuy jébbalaat ay allocation de droits tirage spéciaux njiitu Sénégal di Macky Sall daal di gis ne li ni moom mooy mën nekk ngir réew yi nekk fii ci biir Afrique war a mën a suqaliku Macky Sall yemul foofu ndaxte ba léegi ci biir jullikaay bii di Sud Quotidien ñuy ñi xamal ne moom bëgg nañu jàppale bu baax a réew yu nekk fii ci biir Afrique ngir ñu mën a jot ci marché de capitaux te nag su fekkente ne fay bor daf ci nar a am du nekk loo xam ne daal daf leen di nërmeel moom moomu di Macky daal di gis nag ne sommet de Paris bi nga xam ne ci la ñu nekk nii bu amee solo ak tamit gën ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir Afrique dafa fekk nag ne lépp loo xam ne tey jii ci ay tëralin ak i yoo xam ne war nañ cee mën a ba mu leer nañ ba nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop de Dakar moom it euh, di rafetlu nag sommet boobu nga xam ne ñu ngi koy amal ca Paris te nag la ko tax a jóg moom mooy fexe euh, ba suqali koom-koomu réew yi nekk fii ci biir Afrique mu daal di ci yokk di xamle ne ci proposition yu njiitu réewum Sénégal di Macky Sall daal di fësal moom na la ko moom mooy ne am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy ànd ci ab mbir wante laata ñu koy dëggal li ni mel day faral di yàgg kuréel bi di IADA di initiative pour de la dette africaine ñoom it di rafetlu ci biir jolikaay ñoo ngi koy amal ca Paris Youssou Ndour ak i ñoñam ñoom it daal di xamle ne wàllu bor bi nga xam ne réew yi nekk fii ci biir Afrique dañu ko amale dinañu ko waxtaanee ci wàllu sommet boobu te gis nañu ne am na ay dëkk yu mel ni France ñoom ñi nga xam ne pare nañu ngir neenal bor bi nga xam ne réew Afrique daf ko amale loolu moom moo tax ba ñoom ña nga cay woo waa G7 g ak tamit bépp kuréel ngir ñu jàppale leen ci wàll gi ni mel ñu daal di jukki ci wàllu politique ak bii di réew mi ko quotidien tey ji nag ñu ngay samp ab laaj jëmale di réew mi mi nga xam ne léegi mi ngi bokk ci biir coalition benn Bokk Yaakaar enquête yéen kaay ne nag dugg bi parti réew mi dugg ci biir coalition boobu gën naa yaatal coalition bi gën na leen a dooleel wante gën na fa indi nag ay jafe-jafe ndax sax longo boobu ci diggante APR ak réew mi dina yàgg julikaay bi di euh, enquête laaj na ko professeur Moussa Diaw nekk ab jàngalekat ci wàllu science politique fa li nga xam ne moom mooy ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moom mu daal di xamle ci élection yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal dina leer dina leer ndax ñoom ñaar dañuy wéy di ànd wala bokk dañuy xaajaloo ba faw faaw Amadou baax moom moo daal di xëy xamle ne moom candidat la ci wàllu élection nga ñuy amal ci wàllu mairie bu Parcelles Assainies culikaay bii di critique ne Amadou Ba daal dina koy def te déggoowu ci ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal coalition wante culikaay bii di alerte mi ngi ñee xamal ne xibaar boobu nga xam ne dañu ko fësal jëmale ko nag ci wàllu candidature Amadou Ba moom ci boppam wala boog ay nditam daal dinañu koy weddi ba mu set wecc ci biir culikaay bii di critique suñu naataangoo yi sax di ñu xamal ne moom moom di Amadou Ba daal di ne xamle ne ci ab parti politique bu organisé la bokk moom day xaar kon lépp loo xam ne dafa jóge ci parti bi mu daal di koy dëggal kii di Oumar Gueye moom ba culikaay bii di l'évidence moom moo ñuy xamal ñu joxoñ nañu ko nag baaraam mu tuuma ndaxte euh, nemmeeku ci yenn ci ay gox tax tamit ba ci ay gox yu mel ni Bambilor Kër Massar Guédiawaye ak Pikine ñëpp di ŋàññ li nga xam ne moom la Oumar Gueye daal di fësal culikaay bii di l'observateur tey jii di xëyaat ci yenn ci ay këru liggéeykaay yu mag yoo xam ne dañuy ñëw fii ci biir réew mi lu ñu leen santoon nag duñ ci def lenn ba pare di xaar nag ñu fay leen ci koppar dul takku te nag seeni i yooyu yëpp dafay mujje di nekk ci kanamu yoon ëcculikaay bi di L'Obs di ci tàmbale ak dossier ArcelorMittal mi nga xam ne réewum Sénégal def cee mujjee fay koppar gu takku ñu ne déet ni waay affaire de la centrale à charbon bu Sendou moom mi nga xam ne fu mu nekk ni nag ci wàllu redressement judiciaire la nekk ñaari at ak genn inauguré mbir ya yemul foofu ndaxte coolikaay bii di L'Obs mi ngi ñuy xamal ne tamit affaire Barrick Gold nekk ñu ngi ko nag na ñàkkum ndox gu tar gi nga xam ne ñoo ngi koy nemmeeku ci dëkk yu bëri coolikaay bii di Rewmi Quotidien mi ngi ñuy xamal ne suñu maytuwulee nag mun naa taal dëkk bi ndaxte daal dinañuy gis ne barke Demba Ndiaye fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ndar Dakar tamit ca Ndar nekk dans le Diender foofu moom askan ba fay yeewoo toog nañu ay waxtu ak i bës sax gisuñu euh, pepp ndox loolu nag nekk lu metti ci ñoom cuulikaay bii di réew mi quotidien ni ñu jiite war nañ ci indi ay saafara jeexale ko ak wàllu lamb ak cuulikaay bii di suñu lamb mi ngi ñuy xamal ni Gaston nga fi mu nekk ni nag la ko tax a jóg moom mooy fexe euh, ba taxawal combat ci diggante Tapha Tine ak Bombardier Tapha Tine moom pare na ngir combat boobu war a mën a nekk wante cuulikaay bii di suñu lamb mi ngi ñuy xamal ne dafa mel ni nag ne ci côté Bombardier daal dañ ci hésité loolu sax tax ba ki nga xam ne moom mooy Gaston Mbengue di laajte ndax Bombardier dafa ragal Tapha Tine waaye nag ñi ragal Bombardier du ñeneen ñu dul ay jinde Balla Gaye numéro 2 ki xam ne li ni mel moom mooy Mbaye Boye moom mi nga xam ne nag moom mooy tàggat Bombardier moom mu daal di ci yokk di xam xamle nit ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bootum 2021 bu boobaa moom lépp dina leer lii moo nekkoon mbox jëlikat yi li a ci biir ojulikaay yi ñu leen di ñaan la njaxte lu bës jom Mesdames et messieurs, bonjour. Sommet sur le financement des le président Macky Sall a demandé aux pays du G20 de réallouer aux pays africains leur allocation de droits de tirage spéciaux, un avoir de réserve internationale créé pour compléter les réserves de change officiellement de ces pays membres. Ainsi donc, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le chef économique et financière l'Afrique a surtout besoin d'une réforme de la gouvernance économique et financière mondiale avec des mécanismes innovants permettant à ces pays d'accéder aux marchés de capitaux à des coûts soutenables et selon des maturités adaptées aux actifs à financer. Pour le chef de l'État Macky Sall, le sommet de Paris ne sera une réussite que s'il parvient à établir et porter une dynamique novatrice à trois niveaux, la réforme, un nouvel état d'esprit de partenariat et de nouveaux pour un New Deal à défaut d'un pour l'Afrique. Et sur ce fait, l'économiste Meissa Babo trouve que si la proposition de faire adhérer la Team Europe, le FMI, la Banque mondiale, le G20 et la BAD à la réorientation des allocations des droits de tirage spéciaux chiffrés à 650 milliards de dollars, soit 33 milliards pour l'Afrique, venait à se concrétiser, ce serait une belle chose. Toutefois, ajoute-t-il dans le journal Sud Quotidien, une chose est de proposer, une autre est de convaincre un nombre important de partenaires et enseignants à l'université Cheikh Anta de Dakar émet des réserves. Dans le quotidien LAS, c'est l'initiative pour l'annulation de la dette africaine IADA qui se félicite de ce sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Pour Youssou et compagnie, la question de la dette africaine figure en bonne place dans l'agenda de ce sommet et c'est pourquoi ils s'en réjouissent et encouragent les chefs d'État africains et celui de la France acquis à l'exigence de l'annulation de la dette africaine à réaffirmer une telle option et à interpeller le G7, le G20 et tous les décideurs sur l'urgence de l'annulation de la dette publique africaine. Parlons politique avec nos confrères du journal Enquête qui tente aujourd'hui de résoudre par Idrissa Seck a permis au président de la République d'élargir encore sa majorité. L'entrée aussi du parti Réumi est également source de nombreux conflits au sein, à la périphérie et en dehors de l'Alliance pour la République. Et pour ce qui est de la continuité de cette alliance entre Réumi et l'APR, nos confrères du journal Enquête se sont entretenus avec le politologue Moussa Diaw. Il est aussi enseignant chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis souhaite l'affaiblir. Toujours en politique, dans le journal critique, nos confrères nous parlent de Amadou Ba qui est sanctionné par les instances de l'APR pour échapper solitaire et il volera donc de ses propres ailes. Cependant, nos confrères se demandent s'il n'a pas rompu la discipline de parti en traçant sa propre voie en dehors des résolutions de l'APR comme de Benno Bokk Yakaar. Est-ce que cherche à asseoir une légitimité politique prouvant dans les faits qu'il est libre de ses ambitions? Autant de questions que se posent nos confrères. Toujours concernant la candidature de Amadou Ba à la mairie des Parcelles Assainies, l'on nous signale dans le journal information est totalement infondée. La cellule de communication Amadou a sorti un communiqué pour faire savoir que l'ancien ministre a toujours respecté les règles du parti et de la coalition Benno Ainsi, en aucune manière, il ne dérogerait à la discipline du parti. Et en voilà un ministre qui est lui aussi dans l'œil du cyclone. Il s'agit du ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye. Nos confrères nous indiquent concernant l'acte de la décentralisation, le découpage administratif, les tensions à Bambilor, le défendent contre ces accusations, nous disent nos confrères du journal L'Évidence. C'est devenu maintenant fréquent ou presque pour une affaire fiscale, un retrait de licence pétrolière ou une cessation de paiement. Le Sénégal fait aujourd'hui face à la justice internationale pour des contentieux à milliards de francs CFA. Nos confrères du journal L'Obs nous parlent entre autres de l'affaire ArcelorMittal, mais aussi de l'affaire de la centrale mois auprès de plusieurs dizaines de créanciers portés devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'UMOA. Il y a aussi l'affaire Barrick un litige fiscal qui a récemment occupé la une des journaux et le Sénégal donc est presque devenu un habitué des prétoires de la Chambre arbitrale internationale de Paris et de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'UMOA. Et à contentieux devant la justice internationale, nos confrères de l'Obs nous indiquent qu'il Nord du nom de la firme norvégienne et émirati qui avait porté plainte devant le Centre international de règlement des différends de la Banque mondiale à la suite du retrait de ses permis d'exploration. Le manque d'eau dans les zones rurales et urbaines risque de mettre le feu aux poudres, ce sont nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui nous le font savoir. En effet, le manque d'eau est souvent un casse-tête pour les populations sénégalaises, aussi de saint sont surtout distingués et il faut dire que cette situation dure et perdure depuis deux ans où les habitants de ces deux gros villages sont obligés de se débrouiller suite à une panne de leur forage. Et nous terminons par nos confrères du quotidien du sport Stade qui nous indique Benzema, le bad boy incontournable, a été rappelé mardi à la surprise générale par le sélectionneur Didier Deschamps pour disputer l'Euro qui va donc se tenir du juin au 11 vit une période contrastée. Sportivement, il connaît sans doute à 33 ans la meilleure période de sa carrière, mais hors des pelouses, il est toujours poursuivi pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena dans l'attente d'un procès en octobre. Et sur Twitter, Karim Benzema s'est dit tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance qu'on lui accorde. C'est tout à vos journaux et très